yi euh, ak euh, direction des Sénégalais de l'extérieur ak euh, ministère de la jeunesse ak yeneen institution yu nekk fii ak ay partenaires pour xalaat ci li nga xam ne mooy mbëkk mi maanaam xale yi di jóge Sénégal di dem bitim réew pour wuti liggéey ñun depuis 2015 ñu ngi xalaat ci li nga xam ni mooy Euh, texte yi nga xam ni moom la Sénégal signé ci wàllu convention ak accord euh, lu mel na accord bi nga xam ni euh, mooy tere ñuy teg doomu aadama ay nattu yoo xam ni dafa jéggi dayoo lu lu mel na di ko toroxal walla di ko def loo xam ni daal méngul ak euh, li nga xam ni mooy convention bi nga xam ni moom la Sénégal signé donc bu ñu jógee foofu si dañu xalaat ni que ñun africains yi ak tubaab yi war nañu toog waxtaan mais comme ni ko seetloo soo lancé débat bi doo gis kenn ñun suñu biir la ñuy nekk di waxtaan ndax problème bi ñun ñoo ko moom suñu problème la donc ñun ñoo war xool yan solution la ñu war jël pour que ñu indi ay saafara ci li nga xam ni mooy euh, mbëkk mi donc gis nañu ni que am na ay problèmes yu bari yoo xam ni xale yi duñ koy jànkonteel euh, parfois ay xale yu ndaw ngay gis yoo xam ni dañuy dem euh, ñu leen yóbbu yooyu yëpp dafay interpeller day woo état ci li nga xam ni mooy respect du droit donc ñun li ñu bëgg mooy que li nga xam ni mooy droit accords yeeg textes yi ñu mun ko exiger si yeneen état yi ndax am na dëkk yu bari yoo xam ni. duñ naan ay xarit lañu ci Sénégal ba pare suñu ay doomu réew dem foofu ñu leen di teg ay natt yoo xam ni te ñoom ñu ngi fi di def lu leen neex donc loolu lañu bëggoon mu dakk moo tax ñu tey def tey journée bi pour xalaat ci li nga xam ne mooy mbëkk bi ndax question la boo xam ni euh, dafa am ay fan yu bare yoo xam ni euh, il faut ñu waxtaan si lu mel ne wàllu koom-koom wàllu politique wàllu yoon ak wàllu société loolu moo tax nag tey ñu dajee fii pour xalaat loolu. si wàllum réforme yi ñuy wax politique publique yi lan lañ si war a soppi wala defaraat ko ngir ndaw ñu mën a toog si dëkk waaw maanaam lu ñuy wax euh, dimension sociale moom lañu moom la ñuy wax euh, comme euh, dimension sociale il faut ñu dugal ko ci ci politique bi maanaam souvent dañuy def ay politique yoo xam ni duñu ñu ki nga xam ni mooy ndaw réew mi. ñu ñu mën ci bénéficier woo ndax politique de développement yu bare euh, Sénégal du si am njëriñ Afrique ci boppam dina am ay euh, problème yoo xam ni ci politique de développement bi lay jógee donc politique yooyu du ñu ay politique publique il faut ñu xoolaat ko ndax su fekkee ni politique la boo xam ni xooloo mu indi euh, maanaam yokkute ci biir réew politique boo xam ne du saafara problème yoo xam ni problème mu ndaw yi la bu boobaa day indi ay contradiction donc il faut que euh, question sociale boobu ci politique ñu gën ko ci dugal ndax euh, suñu diggante ak euh, réewu tubaab bi ñi nga xam ne ñoo indi xaalis ci réew mi di investir souvent du ñu xalaat conséquences yi nga xam ne moom la seen politique di jur te Thabo Mbeki waxoon na leen kon ni leen su fekkee ni di nga dafay politique yoo xam ni day indi ñàkk ci biir réew yi nee na ndaw yi daañu xëy benn jour ñu dem jéggi frontière yi pour wuti lekk ndax il faut ñu am lu ñu lekk loolu moo tax moo am léegi moo tax léegi nii bu si kanamee daañu waxtaanaat ci li nga xam ne mooy politique publique yi ak ñoom professeur Mbaye